xanaa Cheikh Tidiane Sy doomu Sëñ Abdou Aziz defe naa moom professeur Abdou Aziz Kébé ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu ñu ngi déglu ci yéex a tàmbali bi nga xamante ni moom la ñu yéex a tàmbali lii di déclaration boo xamante ni ñu ngi jóge ci kilifa diine yi ci réew mi su ma nee kilifa diine yi ci réew mooy kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ci tolluwaay ci réew ñu ràññee ci Serigne Mountakha Mbacké ci Touba ñu ràññee ci Serigne Babacar Sy Mansour ci Tivaouane ñu ràññee ci Serigne Bachir Tall ci Louga mu jaarale ko ci doomam ci Thierno Madani ñu ràññee ci Serigne Abdoulaye Thiaw Laye ca Yoff jaarale ko ci imam Mamadou Lamine Laye ñu ràññee ci Serigne Thiénaba ca Thiénaba ñu ràññee ci Serigne Bekkaay e, Kunta ca Ndiassane Serigne Bou Mouhamad Kunta teewoon na a ràññee ci Serigne Mahi Niass ca tay yoon e, na Niassène Taïba Niassène ak Medina Baye Medina ki nga xamante ni di rakkam Mama Lamine yónnee fi doomam ak mboole mi këru diine yi nga xamante ne ñoo ñoom diine ji fii ci senegal ah li ko sabab nag mooy xew-xew yi nga xamante ni xew na ci réew mi ci fay yi ñu génn muy ay fitna yoo xamante ni yëkkati nañ ko jëm ci wàllu politique ah fa tabaarakallah Sénégal bu tollee ci jamono yu mel nii xel yëpp day dellu ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk xol yi muy kilifa diine yi ñu leen di laaj seeni kàddu fekk na ñoom xam nañ seen responsabilité ci réew mi te bu seen kàddu jógee jibi oree jib dinañ ko jibal waaye dañ koy jibal fañ ko war a jibale ak ñañ ko war a jibal fa tabarakallah kon kilifa yi ci topp tey ñu ràññee ci sëriñ Mansour Sy Dabakh ci ndigalu xalif général yi Tijaan ñu ràññee ci sëriñ Ahmed Badawi Mbacké ci ndigalu xalif général yi Mouride ñu ràññee ci Thierno Seydou Nour Tall ci ndigalu Thierno Bachir jaarale ko ci Thierno Madani ak mbooleem yi kilifa diine fi teew sëriñ Cheikh Omar Sy mii fi ak i seeni rakk ñoo ñëw ci turu xalifa waxtaan ak askan bi ngir jottali message message boo xamante ni lépp mi ngi jëm ci defal xol yi wàcce fitna bi nga xamante ni jóg na ci réew mi ah fa tabarakallah kon du ñu guddal waaye ñoom ñañu war a waxal waxal dañu moom muy ki nga xamante ni mooy le père de la nation mooy président de la bi ñu waxtaanee ak moom tey ñu ngi dugal di waxtaan ak opposition bi ak askan bi ngir jottali lañ fa jëlee ba tabaarkalla ngir lii nga xamante ni mooy jàmm mën a dellu si waat kon dañ leen doon ubbi rek ngir lii nga xamante ni mooy initiative bu ñu yëkkati woon ay bonne volonté yëkkati ko ngir dox jàmm ci réew mi fii mooy jaboon xat tax taxtal ba ñu bàyyi kilifa yi ñu jotal message bi nga xamante moom la xalifa yi yónnee ah ngir réew mi am dal di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kon ñu jox kàddu gi sëriñ ma euh, kan mooy bismillah waxal bismillah njëkk waxal ko waxal wallahi waxal ku lay maat rek ku lay maat ku lay maat dam ko ñaan daal bismillahi rahmaani rahim hmm? nii baax na défrance ma jóg taxaw kon kay ni kay nii waaye ma jóg taxaw déedéet kay nii dama koy may mu toog nii du gudde man sama wax ñu ngi nuyu bokk senegaal yëpp kàddu gi kàddu gi sëñ Mansour moo ko yore ak ñi mu ko séexal xëy na dama ci sànni ay kàddu yu gàtt ñun ñëpp ni ko suñu rakk suñu jarbaat waxe réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk lu nekk dina nëw dem mais senegaal du dem kon bu ñu yàq suñu réew bu ñu taal suñu réew ñun ñëpp nañu wut jàmm jàmm mooy lépp te jàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee salaam tasaare leen jàmm yiw loolu moo ëpp solo lii ñu gis mosuñu ko xam ci Sénégal senegaal yiw lañu ci xam te ñépp bokk ndey ak baay mais tey dafa mel ni euh, fitna boo xamee ne kenn mos ko gis te suñu borom dafa ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytu leen fitna boo xamee ne du yem si ku ko sooke bépp sénégalais tey concert lii concerné na la kon nañu fexe ñun ñépp ñu wut ndox mu sedd ñu sotti ko ci lu weesu weesu na lu jàll jàll na afallahu amma salafa lu jàll dal na ba pare seytaane moo duggoon si biir xol yi yal na yàlla génnee seytaane si biir xol yi lii daal ñun ñépp nañu wut jàmm ku génn na wut jàmm yàq baaxul defar moo gën islaax defar moo gën yàq suñu yàqee suñu alal lañuy yàq dañuy reprendre à zéro kon nag yàlla nañu yàlla musal si yàq lii daal moom moom la doon jërëjëf taal jërëjëf taal jazakumullahu xeyran bismillah cheikh nu ma lay ñaan rek cheikh ahmad arjukum xet ku lay ma waaxida rek daala min min fadilati cheikh cheikh mahamadul muntaqa suñu kilifa suñu sëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki Sénégal yëpp di ñëw ci jataay bi ci ndigalul ak Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne mboolem kilifa yi ne ci réew mi dañoo àndandoo ngir xam ne ñoo yilif ñoo jaboote askan bi ñëpp seenu njaboot lañ te Sénégal dox ba yegg foo xam ne xamee su ko fi woon ñu wax ne nag nañu dajaloo waxtaan ngir jàmm dellusi si ci réew mi ndax jaboot jàmm mooy mbokkam kon ne ñépp wàcc xol yi delloo si xel yi nu xam ne danoo bokk lu nu mënta séddoo te loolu mooy jàmm xam ne kenn ku nekk ci nun ci kilifa yi ab sàmm la te sàmm bu nekk des na ko laaj ak juróom lu mu leen doon sàmm te ndamul sàmm mooy mu jafal si ak juróom mooy benn benn jur bañ a loof genn jur bañ a réer genn jur bañ a sànku nu mu mën a def nag ba jafal si ak juróom noonu nu baax la kon daal ñi ngi ñaan mu dellu ci réew mi ñëpp dellu siwaat waxtaan nañ nag ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi kilifa yi wax nañoo ak moom li ko kilifa yi wax dégg na ko nee na mi ngi wut ko defee kon ñuy ñaan itam ñi nga xam ne ñoo am li ñu doon sàkku ñoom itam ñu may kilifa yi ne teg bañ am yoon woo xam ne dañ fa mën a jaar ba saafara mën a am waaye kilifa yi moom wax nañu moom li ñu war a wax ak moom lépp moom itam dégg na li ñu ko wax te jox na leen kàddoom ne dana ko def kon nañu maase ñun ànd ko dal ñëpp kenn ku ci nekk rek na dal te wut jàmm jooju te buñ ko wutee danañ ci àgg incha allahu taala ndax sëriñ bi wax na ne Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu dafa wax ne nit ki bu bëggee jàmm danga nga koy yéene di ko wax di ko def di ko ñaan yàlla boo ko defee dana ko am te jàmm mooy lépp ndax lislaam diiney jàmm la aljana kërug jàmm la dund itam àdduna ak alaxira li fi gëm li fi gën mooy jàmm te am na loo xam ne dafa wàll ci askanu Sénégal daf ci wàll si waaye bokku ci noonu xamuñu ko woon kon gan la goo xam ne muy lii fi nuyoo nañ ko bu ko kenn fay nañ ko wax mu delluwaat fa mu jóge woon te nu ànd nekk nañ nekke woon toogaay bii nag sunu mag ñi noonu lañ daan def bu jafe-jafe masaan am ñoom ñëpp dañuy àndandoo xam ne ñoo séq njaboot gi ñoo bokk loo xam ne mënee su ko seddoo ñu ànd saafara jàpp nañ ne daal bu nu defee lii ndigalu kii kilifa yi wax jàmm rek mooy daal di ñëw te du yàgg incha allahu taala kon ñu ngi leen sant di leen gërëm danoo xam ne nag diine ji benn la kër yi diina yi benn la moo tax ñu waxoon Cheikh Mahamadul ne ko bu ñu ñëwee yaay wax ci turu Cheikh Mahamadul Muntaqa wax ci turu Cheikh Seydi Ababacar Si wax ci turu Cheikh Mahamadul Bachir Tall wax ci turu mbooleem kër yi diine yi ndax buñ gisante wutoo di kenn ku nekk foo toog mën nga faa toogal ña ca des ndax njaboot gi benn la diine ji benn la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 ak lu mën a xew rek alhamdulilah yonent bi baaxoo woon na ko. nga baal ma Cheikh Amadou Mansour bismillah fi ma waroon a tàmbalee dëgguma la nag. waaw bismillah day ma waroon a mhm. bi dafa waxoon ne bu ñu ñëwee nañ masawu askanu Sénégal. Mhm. nga xam ne ñoom yàlla dogal na seen deret tuuru seen bakkan ñu jaal ñu ñaanal borom bi subhaanahu mu jéggal leen. Mhm. yërëm leen tàbbal leen àjjana. seen bokk yi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi ñu masawu leen ànd ak ñoom loolu maa ngi jégul loolu laa waroon tàmbalee waaye dama jàpp ne yaay wax lépp moo tax waaye kon ma dawalaat loolu rafet na maa ngi jégul rafet na ñaan yàlla xaree leen àjjana te ñaan nag mu yam rafet na benn toq deret bu tuur ëpp na rafet na rawatina bakkan yu rot rawatina bakkan yi ay ndaw waaw waaw waaw kon maa ngi tànn tout d'abord maa ngi ñaan ku nekk jàng fatiha soo dee musulman soo dee chrétien tam yaa xam nooy ñaane ci sa religion ak nooy defee sa nooy jotale sunu boroom la ci sa xol ñu ñaan ko moom sunu boroom yàlla wàcce jàmm ci senegal ak ci àdduna bi yëpp alhamdulillahi rabbil ñii fi wàññi ko yal leen yàlla yërëm ndax noonu nga ko waxee mu jóge ci sang ba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké noonu la jóge tam ci Thierno Bachir mu tedd ma taal ak ci njabootu maam alxaaji Abdullahi Niass al Kawlaxi te tey Cheikh Mouhamadul Mahi nekk fa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di mbokki Sénégal di mbokki àdduna bi yépp di mbokki concitoyens yi teew tey jii ci salle bi waaye di askanu Sénégal ndax defe naa ni microphone yi yëpp mu ngi jotal suñu wax ak suñu kàddu jëme ko ci doomi Sénégal